deru le parce que journal bu yor yor nga a un état euh, au lieu yo bu ngeen réew mi au nga opposant xam lan nga a nit bi nga wax état bi di liggé di wax lan la fan état bi toll lan la nar lan lay def lan la la pour man euh, chemin parce que nous, la andal ñom <laughs> bu ñuy dégg muy wax ci ça signifie que euh, li pensée bi ak yene bi Ousmane Sonko am mom mom la bind rek que euh, battle médias dañ ko wara dindi ci fonction yi ko jox muy muy muy la mairie alors que vous vous êtes en train de parler euh, travailler avec la mairie convention lañuy wax liñ doon ji maté trois pom yow ya nga ci am ci biir mairie battle médias ba wa légui ni nga nekkee sénégalais ba mëna am convention ci biir mairie bobu yow lutax battle médias warta mëna nekk sénégalais ba wara mëna mën Ousmane Sonko continuer liggéeyam

mais est-ce que c'est lui aussi l'auteur de l'article parce que mais mais directeur de publication millions. rédacteur en chef la la titre millions. ci mu ci ko leer. ci millions ci millions ko millions du day affirmer day affirmer <coughs> dafa def sans preuve Diégui Diop da koo faalewul wala da koo toppul wala la muy def ma ngi koy def ci suuf mais doo fekk ay honnête citoyen ngay jël lu ñaaw di ko teg seen der ñu nañu yàbb bàj Barthélémy Dias Barthélémy Dias dafa àndoon ak Sonko bàyyiwul Sonko Sonko bàyyi la ñu waxante woon Sonko mënu koo respecté supporté wul le fait que euh, Khalifa Sall war a nekk candidat dafa am ñaari yëf ñaari nit yoo xam ne dama leen wax chaque jour nañ leen moytu ku mel ne Bougane ku mel ne mi Dias na len moytu ndax sen diggante ak Ousmane Sonko gisuñu Ousmane Sonko di len laal Ousmane Sonko kay à travers ay nitam lay yabal ay nit ñuy wax ci ñom parce que nag buñu ñu ci dossier Ousmane Sonko bi ñom dañu and nak Barthélemy Dias dañoo àndoon ak Bougane Gueye Dany am na xam ci dossier bi ko ñom sen silence bi mo len gëna arranger ko ñu len di jox pour ñu wax wax ji limi muy yeb da ngay Ousmane Sonko di gar walé rek wala muy yoni ay nit mais du du wax Barthélemy Dias directement wala mu ne Bougane directement. Barthélémy Dias taxaw fi wax ne def na ànd naa ak Ousmane Sonko def loo xam ne kasoom xaj na ci wax na ko fi wala waxu fi. Mhm, wax na ko fi ñëpp ñëpp di ko dégg. nee na ànd def na loo xam ne tey kasoom da cee xaj pour Ousmane Sonko. ah mais peut-être tamit Ousmane def na loo xam ne kasoom ci pour Barth parce que. ñaari xarit la ku ne mu de garde yi. mais tamit yor-yor ñoom ils ont. dama ne la dama la question am nañu droit aussi. la ñoo xam ñooy laaj xamuñu ñooy laaj dama ne la c'est de l'acharnement waaye nag sëñ Saliou bu defee lii ñun duñu bett ndax segam bàyyiwul Bougane du mën a bàyyi Barthélémy Dias Bougane mi ko ameloon salaire Bougane mi ko sarax jël ko mu nekk ci télé Bougane bi di def li ko neex di def promotion Ousmane Sonko te Bougane mosut a it soli jëm jëmale ci kon bu defee lii ci Barthélémy Dias du jaaxal sénégalais yi mais encore une fois je pense que ñoom il se serait mieux que ñoom ñu jàppale état nu ñu jàppale état mooy di bind li état di def lu baax di wax li état di def lu baax comme que état lañu àndal mais pas di utal état ay noonu man pour man il gagnerait mi à faire ça que jàpp benn nit di acharné wu ci kawam Barthélémy Dias c'est le maire de Dakar mu neex ko mu naqari ko mairie bi laajal ki bu la neexee nga invité juriste mairie bi munu koo ñàkk poste de député bi lay ñàkk te jeex na mairie bi munu cee yegg am moins que ñu sosol ko créer leneen lu bees ñëw teg fi mais affaire mairie bi moom bu yabo ñu yàbbi ko teg ko ci suuf ñu ci lenn d'accord wax jee wax jee bëri rek après après kii pro procès bi sax déggo nañ ay avocat ñu ne dinañ interjeter appel boobu ba légui léegi tuñ ci dara. xam nga xam nga xam nga yenn bu yàggee c'est de l'acharnement je peux pas comprendre ay nit yu doon and bàyyante nañ bu gaan expliquer na li tax ànd tuut ak Ousmane Sonko amna ci droit munoo mané ne saw dafa bon Ndeye saw dafa li Ndeye saw dafa la ma xey gis yow ngay tagg Ndeye saw waaw Ousmane Macky ki bu ko neexee mu dellu ginnaw nee ñun bu ñu jàppulee Macky di xas Macky Sall di defanteeg moom Ousmane Sonko moo ñu wax lu war a tax ñu bañ Macky Sall waa léegi kooku won ñu tey lu war a tax ñu bañ Macky Sall kooku moo xëy tey di tagg Macky Sall waa léegi Ousmane kii bu ko neexee du dellu ginnaaw waa léegi Khalifa Sall bu dee ñoom dañoo waxante ñu ne ñoom élection yi moo leen boole mais présidentielle ñun ñëpp ku nekk da ngay dem sa yoonu bopp waa léegi Khalifa Sall jël yoonu boppam Ousmane Sonko moy dicté Khalifa Sall limi def te ba Khalifa Sall di politique ñun juddooguñu Ousmane juddoogul maa ngi moom a maase léegi na ñu ne Khalifa Sall du dem candidature lo tax ñu méré ko mais c'est pas du tout normal on n'est pas dans un pays de dictature on ne veut pas être gouverné par des dictateurs Amina d'accord encore une fois ce yor-yor yor-yor là gagnerait plus à parler de ce que l'État fait, ce que Diomaye fait, ce que Ousmane Sonko fait de, son, de son gouvernement en bien, nit ñi Sénégalais D'accord alors euh, Omar. je euh, nga lay parler li mu wax ci laaj nga xam journal bi laaj na ko ni